salaamaaleykum mbokk yéen ñi safoo seetaan Click Dakar 221 ak Karamba TV yaakaar naa mbokk mi ñu jàkkaar lool ki ñu jàkkaar lool jar ñu koy présenté Sénégal ak àdduna xam nañ ko muy Karamba def na jaloore bu nekk yaakaar naa lu mu fi def rek ci réew mi ay defaat la lu nekk def na ko lu mu def rek double la saa su ne mais nag dañ fay ñëw tey ak beneen facette ak leneen loo xam ne yaakaar naa moom mooy lëmbee li nga xam ne mooy àdduna bi muy ah yaakaar naa demoon na fële ca Ndar Ndar géej nag ku ko xam ah xam ne dëkkul lébu la ah te dëkku cosaan la muy rawante gaal yoo xam ne dafa doon am chaque année depuis Senghor ba léegi mu ngi am fële ca Ndar waaye nag bii ak ya doon am bokkul parce que koñ ko tudde la ak ka xam ne tey moo fa demoon pour rawante gaal yi muy Karamba Karamba nag le merci de Guinée nekk fii ci Mbour Petite Côte àdduna yëpp xam nañ ko Europe Asie xam nañ kan mooy Karamba travers YouTube bi Karamba nag yaakaar naa le merci de Guinée li ma naan Wally balaa ko le centre du peuple mais dama naan Karamba le marabout du peuple c' Karamba def gis faj léegi ci barke sëñ Fallou ci kattanu yàlla ak ndox kese dañ koy bàyyi mu nuyoo a ah, tey nag waa mbuur day di xaar waa Ndakaaru day di xaar ñan ñoo xewle ah Ndar Géej dëkku Lébu dëkku cosaan am gan Karamba ñëpp doon ko jooba Karamba ziar nañ la. waaw ñu ngi lay ziar Idali ñu ngi lay ziar. di nuyu ñëpp di nuyu àdduna bi buñ ne àdduna bi yaakaar naa bàyyiwuñ kenn di nuyu àdduna bi di nuyu ñëpp ak Sénégal gi ñuy dëkk di nuyu suñu président di nuyu ak bépp kilifa daal boo xamante ni tey yaa ngi Sénégal ñu ngi lay nuyu di la wax ni seen ndongo bi gën a ndaw muy Karamba moo leen di nuyu di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di leen gërëm di leen sant nuyoo bàyyi noonu. dégg li mu wax di leen gërëm di leen sant nuyu li nga xam ne mooy président macha allah de tous les temps euh, tey Karamba ñu gis tey euh, macha allah euh, yow yaakaar naa kenn du la présenté mais ñu gis nga déplacé wu dem fi nga xam ne mooy ndar rawante gaal yi fa amoon tey lan moo waral tey nga jóge fii dem fële ca rawante gaal ya. waaw li waral ma jóge fii dem dem si rawante gaal parce que ñi ma fa yóbbu yaakaar lañ am si man rek gannaaw yàlla yaakaar lañ am si man rek. te man ndaw laa manuma dara yàlla moo man lépp te yàlla dimbali nañu yàlla dimbali nañu ba yàlla suturaal ñu ba li ñu taxoon a jóg li ñu taxoon a jóg li ñu ñaanoon yàlla yëpp bu ñu fay dem yàlla may nañu lépp si kàttanu yàlla waaw. lan mooy secret Karamba ba coupe boo xam ne rek euh, Karamba jublu na ko rek incha allah ci kattan da koy gañe ñu gis ne nga dem ndar macha allah trois gaal yi nga xam ne ah mooy say gaal yi ñu tuddee woon euh, ñu jël ndam li raw gàddu bi. waaw loolu yàlla moo ma ko sédde yàlla moo ma ko dénk ëllëg mën na ko may keneen mais kam man na ko yàlla may gars yi dañ koy nangu xam nga loolu tamit yombul li tax loolu yombul ku teg la ñetti coupe si benn ngoon ñetti coupe si benn tàkkusaan Karamba moo dajale ñett nee naa leen may meilleur marabout l'équipe nationale coupe d'Afrique ñenn ñi gëmuñu ko nee naa leen Karamba mooy le roi ballon ñenn ñi gëmuñu ko ku teg la ñetti coupe jël ko si même pas ñaari waxtu ñetti waxtu. Mm. si ñetti waxtu nga tegle si ñetti coupe jël ko bàyyi foofu la coupe yam. <laughs> déggoo ma de Royal sax musul teg la ñetti coupe jël ko si benn fan. Barça musul teg la ñetti coupe jël ko si benn fan. Mm. ak ak équipe bu mu manti doon. Mm. Karamba kese moo dugg ndar jël fa ñetti coupe di ko sant yàlla. di remercier waa ndar yi maa ngi gërëm xama maa ngi nuyu waa ndar. di remercier waa ndar yi ñun mënuñu dara lépp lu ñu def ndar bu dee dañoo def erreur boo xamante ne dañoo juum ñu ngi jéggalu di jéggalu kilifa yi nga xamante ne ñoom ñu ngi foofu ñun mënuñu dara ñoom ñooy suñuy kilifa comme ni ma amee ay kilifa fii nuñ koy waxe mbuur xam di jéggalu ñi nga xam ne ñu ngi ndar samay moroom lañ ñoom ñëpp ñu ngi jéggalu parce que su ma sañoon kenn du mer mais yàlla moo binde noonu ay mbiram dimbali Karamba mu jël ñetti coupe yëpp. si benn ngoon moo tax ñi ko jël ñi nga xam ne ñoom laa ko jëlal maa ngi leen di félicité ñi nga xamante ni ñoom laa raw maa ngi leen di wax massa coona maa ngi leen di wax massa coona ëllëg yàlla mën na leen a may lu ëpp loolu ëllëg yàlla mën na leen a may lu ëpp loolu parce que àdduna noonu la tey yàlla day may kii suba mu xañ kële may ki suba mu xañ kële ñëw naa ndar sama première sortie ndar mooy so mooy dugg bi ma fa dugg bi ma juddoo ba tey sama ndey ak sama baay ba tey suma dugg ndar. maa ngi soog a dem ndar. te bi ma demee ndar gars yi ñu ne am na ñu bëri ñu ne dëkk boobu musul mooy yàlla si yenn borom xam-xam yi ñu ne dëkk boobu musul mooy yàlla. loo fa ñaan yàlla yàlla may la ko man gëm naa ko. dem naa ndar ñetti coupe laa bëgg. ñaan yàlla bi ëpp doole si àdduna ak yàlla xam-xam bi ma dénk ak jinne yi ma àndal yàlla may na ma ko ba ma jël ñetti coupe yëpp ñetti trophée yëpp. si benn tàkkusaan si ku ko mos a def ban sëriñ. ban sëriñ moo mos a jël ñetti trophée si benn tàkkusaan mbuur ba mbuur Sénégal laay wax. ban sëriñ moo mos a taxaw jël ñetti trophée coupe ñetti coupe nga jël ko si benn tàkkusaan kàlla Messi. le roi du ballon. roi du ballon gis bi nga demee Ndar ñu gis mbooloo mi la Ndar. ak ni ñu la accueillir amul président Macky Sall sax bu fa dem gisuñu mbooloo moomu parce que image yaa ngi noonu ñu xool image yi xool image yi xool mbooloo mi nga xam ne moo daran Karamba del ci waat ci waxtaan bi image yaa ngi noonu sama réalisateur war ma image ndar yi noonu ñu del ci waat ci Karamba parce que lii le président Macky Sall jaar na ndar barki démb sax mais doo gisoo mbooloo mi kon bu ñu nee la centre du peuple Waly Balago Seck mais bu ñ nee la le marabout du peuple dañ naan Karamba borom mbooloo mi yàlla la ak li sëñ Fallou def si man sëñ Fallou ku ko xam xam ne kuy sëriñ moo cëpp bayre sëriñ barke Alaaji Fallou Mbàkke waxewuma ko pour dara parce que man man lépp ñëpp samay sëriñ lañ mais yàlla moo def sama sëriñ moo ëpp bayre sëriñ yi sëñ Fallou moo ëpp bayre sëriñ yi ma doon donga sëriñ Fallou bi gën a ndaw kon sëñ Fallou si lim def si man bayre bokk na ci sans sëñ Fallou dama yor ay jinne dama yor ay jinne mais sëñ Fallou ñu bëriñ dañ ma bëgg am na ñoom dañ maa bëgg bëggewuñ ma pour sama xam-xam bi mm-hmm. bëggewuñ ma li may faj bëggewuñ ma ni may doxe ñu bëri dañ ma bëgg ngir jëmmi sëriñ fàllu Mbacke ak li ma bëgg li ma bëgg sëñ Fallou bii kii li ma ko bëgg def na si man bayre bu bari bayre bu rëy te man xam naa ko sëñ Fallou barke sëriñ fàllu Mbacke bi ma yaakaar moo tax bi ma ñëwee taxaw ba ma ñëwee taxaw bëriwul mbooloo mais diggante bi ma taxaw ba def samay affaire taxaw si oto bi mbooloo mi commencé sulleeku moo tax boo xoolee si video yi damay fëgg sama bopp bi joxoñ yàlla damay fëgg sama bopp bi joxoñ yàlla foofu maa ngi leen xamal ne xam-xam bi ma yor si yàlla la jóge direct kon jërëjëf yàlla suñu borom yow yàlla bi ma may mbooloo mi bu ma demee mbuur moom laa fay def nga ni falaa laa public mbuur fii mbuur nga ni fi laa ndar nga ni fa laa ëpp public Thiès nga ni fa laa ëpp public Kaolack nga ni fa laa ëpp public Dakar nga ni fa laa ëpp public man fu ma dem danga naan fa laa ëpp public du man yàlla la du ma dara mais sëriñ bu ma maaseel jamono maa lëpp mbooloo barke sëriñ Fallou Mbacke sëriñ bu ma maaseel jamono maa lëpp mbooloo maa lëpp bayre maa la gën a tegu si temps bi maa la gën a tegu si lépp mais du ma la ko jaay parce que ay ndongo lañ waaw duñ la ko jaay quoi ay ndongo lañ mais su ko gars yi wootee Karamba le Messi le roi du ballon waaw loolu la karambaal liggéey ndar benn tàkkusaan mu jàddu ñetti coupe mbooloo mi yàlla moo ma ko may sëñ Fallou may ma bayra bi. mais sa diggante ak waa ndar parce que li nga wax mosoo dem ndar c'est la première fois nga juddoo ba léegi dem ndar mais link bi nga am ndar bañ tuddal ay gaal lan moo waral tey tudde gaal yi en fait ban kan connaissance nga fa am ban bañ tuddal gaal yi tey. waaw dama pourvé rek xama nga pourvé bu ñu nee ndar dañuy fàtte fan laa nekk du mbuur mbuur daaw rawante bi maa ko jël sama gaaloo ko jël daaw sama gaal moo jël rawante mbuur ren sama gaal moo ko jëlaat te daaw li tax rawante bi garaaw sama gaal daa raw ñu ne rawante bi jaaru yoon dañuy rawante waat ñu rawante waat sama gaal rawaat ren sama gaal moo jëlaat rawante bi mbuur ñu yaakaar si laa yem ma duggaat ndar sama ñetti gaal ñoo jël pay trois pays maa ko jël ndar Messi meilleur maaraabu ki gannaaw yàlla suñu borom bi ñu sàkk su dee si cadre sëriñ yi ñuy doxee bu dee cadre sëriñ ñi liggéey kam ni may liggéey gannaaw yàlla suñu borom maa tax coupe d'Afrique ñëw Sénégal gannaaw yàlla suñu borom man maa tax Sénégal kalifa coupe du monde. coupe yi du dara. lii match amical la. bu gars yi di wax ndar bi fàtte li ma def si coupe d'Afrique bi. bu gars yi wax si ndar bi fàttali ma def si qualification coupe du monde bi man sëriñ buy pourvu laa damay pourvu rek ba fi ko yàlla yemale si kàttanu yàlla moo ñu dara moo tax lépp dañ koy delloo yàlla rek. Euh, euh, rawante bi gaal gis nañ fa gaal yu damm lu mu demee noonu. non loolu xam naa yaa ngi mais foog ñu leeral ko parce que mu ngi lëmbe réew mi am na sëriñ yoo xam ne dañu doon naan boo ñëwee sa gaal nii sa gaal nii ñu gis am gaal yoo xam ne dañoo départ ñu damm. waaw sëriñ yooyu maa ngi leen nuyu à partage wax dëgg yàlla xam nga non dama leen nuyu rek pour jox leen cër mais man xam Karamba xam ne Karamba du seeral parce que damay dox si lu rafet pour noono bañ a am ndar kam ñi ma indi ndar ak ñoom mais man bu dee maa ak ñoom ak ñoom may xam ma man damay tubb si xorom si uti kaani déglu ma rek xam nga xam nga ni man damay tubb si xorom si uti kaani uti poobar lépp jaxase ko xool fi ma koy def mais su ma waxee lii dafa am lu tax maanaam damay ni màggal parce que le la rek que le meilleur yàlla moo def ma gañe leen ëllëg man nañ ma gañe mais yàlla na yeex ëllëg man nañ ma gañe mais yàlla na yeex yàlla moo def loolu yàlla moo ko dogal yàlla mooy ma ndam loolu mais si côté këpp gaal boobu ngay wax gaal yooyu dëpp parce que man avant may dem du fen quoi su dee li ma amul yàlla bu ma fanaan dama ni gars yi ñu ne ma waaw ñoom ñi ma yóbbu man leen ñu ne ma ndar am na sëriñ yu fa nekk yoo xam ne chaque année ñooy këpp gaal yi muñ mhm. bu ñu déparé këpp suñu gaal man leen ren ñu ne ma waaw man leen sëriñ boobu ñu ne ma waaw man leen man may këpp gaalam mhm. déggoo ma de mhm. moom sëriñ boobu doon këpp gaal man leen ren maay këpp gaalam te ndamoowu ko bàkkoowu ma ko lépp yàlla la këpp gaal lañu yaakaar kooku gaalam si digg bi la dagg daa séparé wu moom gaal gi si digg bi la dagg daa séparé wu. ma de gaal gi si digg bi la dagg daa séparé te rawante buñ ko tegaatoon tey dama leen rawaat. ba li ma la su leen neexee ñu jël seeni gaal gaa yi jël ay filature na dama leen raw si joow kese. du man yàlla la. gars yi dañuy dañuy juwaarle ku yàlla may. nit àdduna bu la yàlla mayee nga toll say biddéew foo dugg dañ naan yàlla dalaa faral. gars yi dañuy jiwaar la ku toll si ay biddéewam Karamba dafa toll si ay biddéewam moo tax foo gis étoile bi ngay gis may watu kenn mënu si dara yàlla rek damaa toll samay biddéew moo tax su may kafantoo def dara sax gars yi ragaluñ ma de li may waxantoo lañ ragal déggoo ma ne ñi may àndal man ragaluñ ma de mais sama làmmañ bi li ma ciy waxantoo lañ ragal barke Serigne Fallou Mbacke ragaluñ ma de làmmañ bi lañ ragal man moo tax bëgguma di waxantu billaahi te yaakaar naa maa ngi kontaan di nuyu waa Ndar yëpp kii nu mu tuddee sax oh, comment adresse inu maa ngi ko maa ngi koy nuyu. di ko sant di ko gërëm ak waa Ndar yëpp parce que gannaaw yàlla suñu borom moom moo tax ma ñëw Ndar mais yóbboo ma Ndar loo xamante ni tey. néew ma karamba nga jaxasa ndar mm-hmm. waxuma loolu dana ma gëmloo ma karamba affaire sport la que le meilleur am nañ yaakaar ne dañ ñuy gañal ñetti pay yëpp mm-hmm. ma ne ko barke sëñ Fallou sëñ Fallou tas yaakaar te man taalibe sëñ Fallou laa kam loolu nga ma wax dinaa jaayante samedi bi dama war a faj dama war a liggéey mais dinaa forcer trois heures du matin laa laay préparer fii pour war a dugg ndar dem naa yàlla dimbali ma jël naa ñetti copies lépp si samedi bi de ba pare continuer forcer ñëw faj malaati ci samedi bi gàddu ñetti copies ndar continuer ñëw buur la jàpp dëmm yeeg jinne yi léegi léegi libéré waa Ndar libéré waa mbuur laa def samedi bi passé le Messi kese duma dara yàlla la yàlla moo ñu ko jagleel yàlla moo ñu ko may ñun mënuñu dara bu kenn xeeb li ma yàlla may man xeebu ma ko. sama teraanga si la nekk te maa ngi koy prouver parce que comme këpp gaal yooyu ngay wax nga baal ma nag si ma li ma arréeraat wax ji quoi nga baal ma si li ma arréeraat comme këpp gaal dafa amay sëriñ yu ma siy tëkku. waaw dégg naa mhm. duñ sportif ñoom xamuñu ma. man de néew ma kenn du ma gañe de. néew ma kenn du ma gañe parce que yàlla kese lañ mënul gañe. mais benn affaire naa la ko xamal de. depuis deux mille dix huit. deux mille dix huit ba deux mille vingt deux. deux mille dix huit ba deux mille vingt deux benn défaite laa ci am. deux mille dix huit ba deux mille vingt deux benn défaite laa ci am ñaata at juróomi at. Mhm. mille 2018 ba 2022 benn defet laa ci am ma koy sant yàlla te defet boobu bi may soog a door la ñoo ñoo ma jàng ñoo ma def mbër par série lañ ma gañe match boobu Joal waa Joal nañ ma déglu waa yëpp a génn ma sot ma doon booy bu ndaw ñu may sot waa maama ngéej ma waa maama ngéej Joal man kese lañ indi woon si stade bi hmm? waa déggoo match boobu danañ ma dégg par série lañ ma gañe deux bii lañ indi dugal ma benn bi ma dugal leen benn bi ñu séddoo ko muy ñaar match bi dem série ñuy dal sama kaw si ñi ma àndal ma xam ne su ma demee jaayante match su ma gañee sax nu ma génne stade bi laay wax match boobu noonu laa ko perte par série depuis 2018 ba tey match bu ma am dama koy gañe te ni ko yàlla kiiwee maa ngi koy ñaan yàlla du man yàlla na ko yàlla na ko yàlla gën a yokk yàlla na ko yàlla gën a yokk képp ku karamba gañe boo fu balaatee yàlla may la ndam mhm. mais sama ndam nañ ma ko bàyyee képp ku karamba gañe soo amaatee mat wala nga amaat dara yàlla na la yàlla may ndam mais buñ dajee yàlla ma yàlla may ndam parce que man dama doon nit koo xam ni su ma amee mat wala ma am rawante wala ma am xëccoo boo xamante ni ay junniy junniy junniy junni nit dañuy taxaw di xaar dina am ndam wala du am ndam. am na ñoo xam ne sama defet depuis deux mille dix-huit boobu ba tey ñu ngi koy topp waaw mënuñu kaa gis. mën nañu koo gis yàlla moo leen ëpp doole. yàlla moo na ëpp doole si diggante boobu 2018 Karamba ñaata coupe la si jël ñaata trophée laa si jël mënuma ko wàññi moo tax à chaque fois damay sant yàlla parce que damay xam ne lii du sama man-man lii yàlla kese la yàlla rek moo lay dimbali. Mhm. macha allah nga jóge ndar jël coupe boo nee jóge ndar jël coupe. Mhm. borom xel yi gàtt yi dañ naan benn coupe la jël. one two three muy ñaata ñett benn ñaar ñett français ne ko lan un deux trois benn tàkkusaan si benn tàkkusaan ñëw sëriñ bu ne karamba xamul dara defal li may def tey Sénégal dama bëgg gaay yi yeewu xam nag bëri nañ sëriñ si man dara xam xoola man man su may tëdd pour ñu jàll man su may tëdd du ma takk gaal laaj du ma werd duma def dara li boobu dama koy jàllale pour yenn sëriñ yooyu nga xamante ne ñoom ñooy jéemal karamba nee naa leen sëriñ bu ma si ñemee 3 heures 10 du takk gàllaaj du ma wer du ma def dara foo ma cuq ma fekk la fa booy wa boo naan bërët dootoo ko dolli ak koo manti doon. en ko ma xamoo ko man ku ma lu ma man. ni ma leen déranger lan la. ni ma leen déranger woneel xam-xam. waaw man xam-xam moo la déranger man de sëriñ bu ma déranger si xam-xam ma won la xam-xam. sëriñ bu ma déranger koo xamante ni tey man yow danga may déranger si wàllu xam-xam dinaa la won ni maa la ëpp xam-xam wala ma taxaw ne la yow yaa ma ëpp xam-xam mais gars yi dañoo soxor nanguwuñ loolu xam-xam si jinna la am. waaw ñaata sëriñ loolu loolu bëgguma ko wax wax sax parce que yenn sëriñ kon dootuñu ma ñeme ñaata sëriñ ñamay on man dañoo bëgg mbooloo. ñaata man la temps nga may fay. tant nga may fay sama yoon nekku si sëriñ bu si ñëw daal toog samay tànk ah réyoo réyoo comme nekk fi di rëy rëylu wala di nganda ngandalu ma defal li ma lay defal nga dem sa yoon toj sa dëkk. Ah. mais boo fi nekkee di nganda ngandalu man li ma yor si ay jinne dafa bare bare bare bare bare bare bare bare bare mënuma ko wàññi. te ñi ma gis ñu affaire sëriñ neex na leen mais amuñu jinne bu rëy. barki Allaaji Fàllu Mbàkke bi may yaakaar barki Serigne Fàllu Serigne yu bëri ñu ngi mbubboo fii jinne amuñu jinne am na ñoo xam ne nañ karambaa amul jinne kam li may wax li may wax ñoom am na ñu ne man awuma jinne te li ma jaaxal man li may taxawee di wax jinne yi ñuy def lu tax ñoom mënuñu kaa def jinne boo ko yoree da ngay taxaw di wax say jinne ñuy def ñëpp di ko gis film en direct. kooku moo yor ay jinne man du tiitaroo jinne jinne yi ñoo may tiitaroo jinne boo ni karam jinne bu taxaw jinne boo ni jinne boo ni jinne bu ne karamba mooy suñu baay mu ngi mel ni nga leen président Amérique mooy suñu papa noonu laa mel si jinne yi waaw gëm naa Macky Sall nag su ma neexee ma ni président kam nga ni président Macky Sall mais kam réew mi ni mu demee la bugguma féete fen faral Sonko war ma faral Macky Sall moo tax ma dali États-Unis parce que su ma waxee tudd Macky rek dañ naan dafa féete boor bee ay noon la may utal su ma waxee Sonko boor bee ay noon la may utal bëgguma noon faraluma Macky Sall faraluma Sonko politikuma Sénégal laa faral faraluma Macky Sall faraluma Sonko Sénégal laa faral muy suñ trois couleurs yi muy sama chiffre trois bi moo ñëwaat si drapeau Sénégal moo tax tey benn jinne wax na leen ko nee na leen kii moo kat moo téye Sénégal. moo ah, sifu trois yi muy muy ban drapeau vert zone rouge man loolu laa gëm j'aime moom pays mais du président ñaata président ñoo fi jaar dem tey soo fi nekkee di faral président mu jóge fi dem yoonam beneen président nekkaat bu yàggee lu signé dëgg mënoo signé ay fen ñaari ñaari signature baaxul benn signature moo baax boo boo xam man su ma xasee ba signé signé naa kam ni ma signé si Wally Seck ñaata artistes ñoo may pour seen soirée mais ñemewu maa dem. xeeb sama artiste faramaareen laa ñëpp xas nañ ba xamee mbuur ñëpp xam nañ ne Karamba Karamba Wally Seck la moo tax nangootumaa dem benn soirée artiste ñu jéggal ma rek parce que bëgguma dem seeni soirée fi ma bokk man ñu koy gisee neneen am nañu waykat mën nañoo woy am nañ kat am nañ sëriñ am nañ lépp manqué wuñ dara ñun faramaaree ni Sénégal ñoo ko téye du man yàlla la yàlla kese. ñu gis Karamba sa liggéey lay ñëw ba léegi rek macha allah gis nga di nga yànjee macha allah sànce li nga sànce kenn xamul sax nu mu toll macha allah ak rafetaay mais ñu gis booy faj benn xaral bi ngay amal Karamba bu nekk di faj macha allah ak Karamba bi toog tey du benn lan mooy problème lan mooy sa. liggéey nañ koy jox xam su ma neexoon chaque jour su may xëy ma sol jasneer mais jasneer liggéeyul xamala moo tax jasneer liggéeyul ñaata sëriñ ñoo fi nekk di soli jasneer rek dara xamuñu ko. xamuñu dara. dara xamuñu ko du ñëpp nag. mais Sénégal bëri na sëriñ yu bëri sol jasneer bu dee trente personnes kam ñuy toog di sol jasneer bu dee trente personnes. boo si génnee cinq mhm. vingt cinq yi xamuñu dara te Sénégal benn affaire lañ war a bàyyi man li may sol yëre orof bariwul mais tey sol ko terewul ma bañ a wax ak ñoom parce que Sénégal dama seetlu ay sëriñu xale yoo xamante ni tey koo si gis ngan di garaam bu sol ngan di garaam sol te dañoo war a simmi seen garaam bu yi sol seeni kilot sol seeni tubay dimbali jaami ñu dem tey sëriñu bëri Sénégal ay sëriñu kat lañ ñoom boo xoolee dañuy wax rek di wax rek ñii di comédien rek di wax rek di comédien te comédien bi am na ñu ko moom ñu boo demee nga gëstu leen dem leen ngeen gëstu Sénégal ku seetaan vidéo demal nga gëstu demal nga gëstu maara yooyu ñuy wax luñ mës a def Sénégal luñ mës a defal état bi luñ mës a def équipe nationale luñ mës a def si mim réew senegal ñoom ñoo jariñ seen bopp bëgg a jariñ réew mi te képp ku si jariñ sa bopp ay fen nga jariñi sa bopp nañu def attention Sénégal nañ xoolaat waaye affaire yi fan la féete kuy fen lañ xam kuy naxaate kuy teg dil wala ku yor làmmañam te yor sa tiktok fee sa tiktok kese ngay yor ubbi sa làmmañ di wax rek di wax te wax ji amul benn njariñ dama tuub su ma tuubul woon ni laa ne rangalee ñoom ñëpp saaga leen ba pare affiche seeni photo mais duma ko def tey tey damaa sol jasneer moo tax ma yaru tey jasneer laa laal ñii dañuy maytu man maa ngi ñoom duñ benn sëriñ bojo bo ñii maa leen ëpp fit benn sëriñ bojo maa leen ëpp fit xam-xam li ma fi ma si capable capable loo ko fi ma si yem yemoo fi nga jàngi ja fi ma jàngee man fi nga jànge man jàngiwu ma soo demee daara mosumaa dem daara te manuma tari ayatul kursi bi manuma tari ayatul kursi manuma ko manuma tari ayatul kursi bi su ma neexee ma teg fii jal idali su ma neexee ma def la sëriñ. gëm naa loolu. barki Fàllu idali su ma neexee ma def la sëriñ. xam la moo tax su la neexee ma def la sëriñ. Mhm. bis boo bis boo demee nga xool benn bis nga ñëw ma ma defal la lu garaaw sama kër damay toog teg la samay tànk yaay taxaw di wax jinne ñuy def yaay faj ñëpp te su ma neexee loolu mooy continuer barki sëriñ Fàllu Mbàkke moo tax sëriñ yi di nganda ngandal ñii nañ ñëw ñu sukk si tànk yi jébbalu bu ñu rëy mhm. nit du rëy ku nekk am na lu la yàlla dénk mais li ma yàlla dénk ku xëccoog man da ngay sol ndox ñun mën nañu dara ay éléments yàlla lañ rek waa comme li ñu lay xeex sax souvent di yebal ay clients sax pour ñëw pour piéger la. ci sa li wàllu liggéey dama koy gis souvent. waaw liggéey bi gis nga liggéey bi lu ne lañ laa si daj man li ma si dajee mënu ko wax parce que ay sëriñ dañuy jël ay nit di leen fay xaalis pour ñu ñëw si karamba def ay geste pour buñ jaaree si karamba waaw buñ demee ni karamba fajuma vidéo yaa ngi fii pour utal beneen sëriñ buzz te sëriñ boobu prouvé wul dara man li ma prouvé ku ko bëgg a seetaan demal karamba TV di nga gis sama faj di nga gis ñaat tey ñaata nit laa faj ah tey li ma faj est-ce que mën naa ko wàññi. tey ñaata jinne laa jàpp ak ñaata dëmm. sëriñ yooyu di wax buñ juddoo seen ndey ak seen baay mosuñoo gis jinne ba jinne di leen xeeñ wala ñuy jàpp jinne ku ko man noonu la koy defee Karamba. mais ay mais li tax ñuy xeex yoobu seen jinne yi ñooy xeex. jinne yi ak dëmm yi ñoo doon dalante foofu li ma nekk si mbaar mi yëpp ñu ngi dalante lépp nee naa leen loo leen def def maa ngi fa ma toog maa ngi naan loo leen def def leen ko bala maa génn gars yi di leen jàpp ku nekk di dërël moo tax bi ma génnee man leen bu kenn jàppati. Mm-hmm. ku yor ay jinne da koy wane ku yor ay jinne da koy wone bu kenn jàppati gars yi di jàpp ma leen bàyyi leen. ana sama jinne yi def leen li. Mm-hmm. ku yor jinne noonu lay def. kuy concurrence anteeg karamba wala kuy kalanteeg karamba wala nga ni karamba xamul dara nga doon sëriñ ngir yàlla dama la ko ñaan ak jëmmi sëriñ Fallou nañ ñu may benn jour ñu jàkkaarloo ñëpp message buy jàll pour Sénégal bàyyi ma benn sëriñ sëriñ bu taxaw ne karamba xamul dara Sénégal nañ ñu may benn journée ñu xool li nga man te bala ma bala ñoo may benn journée sax nañ dem gëstu loo mës a def ba pare. suñ gëstoo li nga mës a def ñu xam ne kii xaw na dab dabal karamba ñu may ñu ko bu ñu ko mayee ma jàngal la xam-xam def loo dul def su ma paree sa sens la yow sëriñ boobu dama lay dimbali laa di ma may la quinze jinne nga yóbbaale ko ma boole laa quinze jinne yoo lay dimbali man naa ko naka sëriñ yi xëccoo gaaw ñu ëffal ñu loolu laa bëgg yaram bay xasan yaram bi day xasan damaa na combat damaa na mu mel ni tax may laaj foo jóge ak foo dëkk xaw ma leen fi may faje ak fi ma dëkk du benn maladie bala maa xëy kër ga laa ni fekk man soo gisee may laajte loolu pour ñuy toog ñu xam ni ñii fi ñu jóge man xaw ma leen kompaloowu ma ak ñoom mm-hmm. xaw ma fu ñu jógee mm-hmm. moo tax à chaque fois damay laaj loolu malaat bi comme àndal ngay kii man la jugal jógal taxaw parce que bëgguma nga dem ba sa kër di ma woo li may faj say bët laa koy faja say tànk taxawal nga déglul kii bu dee jinne man la déglu li mu wax am na wala amul nga ne ma am na noonu laa koy defe ba mu jeex ma faj ko mu jóg soit mu pare kott ma di jooy wala mu daw kott la di jooy ay nit nit que kooku lu waral loolu kooku ay million la ñàkk si yaayam ay million la ñàkk si yaayam ma faj yaayam si ay bëtam muy gis bi ma fajee yaayam ba pare rakkam daanu ma fajaat rakkam loolu moo ko jàpp mënatul a téye boppam mu daw kottu ma commencé di jooy waaw di jooy man dem naa bay bëgg a jooy sax mais dama xam ni ñii ñëpp man maa leen dajale waaw sama xol kii na mais waruma gaaw a jooy quoi parce que ñii ñëpp man maa tax te su ma jooyee ñu bëri buñ jooyulee sax seen yaram day day nagam taman jooy bëgguma jooy boobu man jooyu àll jooy hmm, waaw moom mën na jooy mën naa kii miti dem naa bay kii mais sama jooy si àll jooy jooyee àll man su ma àlloo dëgg damay jooy su ma jooyul def musiba hmm. waaw loolu mooy dégage samay affaire loolu mhm. kese la. Hmm. ñu gis comme li ñuy wax rek yaakaar naa bu ñu tëjee wax itam euh, yaakaar naa émission parce que ala daaw mel na say faj euh, gis nañ toujours ndox ngay faje toujours ndox mi day jeex sax ñu jënde ko direct ci boutique ba. looloo tax bokkuma ak sëriñ ndox kese. ndox kese te nañ karamba xamul dara. ndox kese. mbalit lu ma neex laay faje Sénégal benn sëriñ mooy faje ndox kese am na ñoo xam ne boo waxee ñun la sëriñ borom ndox yi lañ lay wax borom ndox yi. <laughs> sëriñ bi yor mbuusu ndox yi. ndox fu ma ndox ban dëkk moo amul ndox. ah ban dëkk moo amul ndox dëkk boo dem am na ndox. <laughs> kon fu ma dem sama xam-xam a nga fa. <laughs> xam-xam du si ay sunguf. du ay xaatim tey boo yore ay xaatim bu xaatimi lakkee foo jëm sa secret xaatimi bu tàkkee tey foo jëm tey boo demee dëkk sungu fee nga soxla amu fa foo jëm looy faje ah loolu du xam-xam xam naturel la boo xamante ni tey yàlla moo koy def si yow tey yaay toog nga santir ah man de tey suuf laay faje de nga jël suuf te danga siy faj nit ah man tey mbalit laay faje de nga jël mbalit danga si faj nit ah man tey ndox laay faje de nga jël ndox kese da nga siy fat ni faj nit ah man tey duma laal dara duma tari duma ma jàng saar duma ma jat damay wax kese jinne yi def tey loolu laay faje nit yi ñaata yoon laa ko def mënuma ko waññi ñàkkul yëpp dinañ gis image yi mhm. comprendre nga image yi may faje ndox kese mhm. ak image yi nga xam ne mbalitu kër la amul amul amul lu ma deful te defaguma dara nag. ñoom pour ñoom man damay def dara de man yeewooguma nii damay nelaw ba tey. vidéo karamba yi ñuy seetaan trophée yi ñuy jël yëpp si nelaw laa koy jëlee ba tey yeewooguma su ma yeewoo ñu gis lu garaaw senegal bis ma yeewoo Sénégal ñu gis lu garaaw Sénégal.